asalaamualeykum uh, ah, his excellency di president adama barrow ye ma laa ñaan nga bàyyi tali yi nga sampa ak lépp li nga def ci barke weeri bi sa éene sa xalaat yépp nga jublu ko ci health care bi system bi health care system bi lopitaan yi you know ye Gambia lopitaan ñu ngee soona yee ñu fa nekk di liggéey ñu ngee soona waaw suñ suñu yaay yi suñoo wasin ñu ngee dee billaahi walaay yërëm leen parce que tali yi nga defar pour moto yi daw fa moto yi nit yaa ko dawal nit yi suñ wérutee li nga liggéey yëpp amul njëriñ xam man maa la nekk di ñaan man sa jaam bu xeebu bi waaw man gambien bu tekkiwul dara maa la ñëw di ñaan xeebu torop waaw di la ñaan ngir yàlla nga lépp li nga def nga jublu si health care system bi you know right now Gambia health care system bi dafa garaaw loolu rek lañ soxlaa yaa élection mu ngee ñëw understand naa da nga bugg a faluwaat yaa maa fiil understand nañ ñun understand nañ parce que Gambia xam nga ñun ñëpp a bokk a peen xam yee yow nongo seera ku daanga yow xamante nañ xamante nañ soo ma xamutee tamit yow xam nga suma gaay yi maa laa ñaan looy def yëpp nga bàyyi ko you know waaw amul defar tali amul defar dara soxluñ dara lopitaan yi xam nga lopitaan yi health center yi xam nga health care system bi you know loolu lañ soxla you know waaw maa laa ñaan si barke weeri koor bi nga bàyyi néeg yi nga sampa li nga def foofu yëpp health care system bi mooy force you know waaw parce que time boobu noonu Gambia soo déggee nit de na bala nga dee dégga nit deeyaat na waaye léegi dafa garaaw maa laa ñaan you know man sa jaam bu xeebu laa nag politique ma waaw ànduma benn politicien you know yee waaye dama laa ñaan ngir yàlla rek nga jàppale ñu nga bàyyi lépp li nga def nga jublu sa xam nga sa xaw ma naka développement xaw ma naka waaw sa NDP bi sa NDP bi yëpp na nekk affaire yi health you know waaw health jublul jublul lopitaan yi noo jàppale lopitaan yi ak ñu faa liggéey you know waaw yal na la yàlla jàppale you know ak képp ku bugg a toog si réew mi foofu noonu waaw jërëjëf